waaw onze la mina seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen jaajëfal nañ leen tey nag dañoo seet si champion bu mag waaw nga xam ne dootuñ ko présenté waa lit simple muy Boucar Seck ndaamal daar bu Palmarin seet si bi nag. dañ ko indiwaat li nga xamante ne moom mooy trophée am trophée meilleur lutteur de la semaine trophée des amateurs nga xam ne moom moo ko gagné ci semaine di si entre mercredi le 16 ak mercredi le 23 parce que week-end bi nga xamante ne moo nekkoon week-end di diggante le 19 samedi le 19 ak dimanche le 20 jël na si ñaari drapeau wala finaalu na si ñaari yoon finaalu fi nga xamante ne moom mooy Kaarang moo ki nga xamante ne mooy Njool Njool Géant final bi mu mujjuñ koo bëre ndax problème mu promoteur ay wàññi mise ak yooyu noonu ñu jógee foofu noonu ci dimanche bi mu dem Daasilaame séeréer jël ko ci kaw ki nga xamante ni moom mooy baa boobu ñoojoor moom aussi bi ñu defee journal bi ñu ngi ko nominé woon moom Bukar ki nga xamante ni moom mooy Batista bu Kaolack ak Ndiol Géant Ndiol Géant bu bu Bargny bi gars yi voté bi ñu ñëwaatee si beneen mercredi bi ñu xool ne moom Bukar moo ëppale ay trophée ñu indi ko li nga xamante ne moom mooy trophée bi Bukar trophée baa ngi nii nga xam ne yaa ko yaa ko liggéey <laughs> waaw. ci biir aussi loolu moom lañ njëkk a defal émission mais moom gañewul premier trophée bi parce que loolu c'est important aussi ñu préciser ko bi jiitu fils de Batlinski moo ko gañe waaw deuxième bi moom moom moo ko gañe trois du Sané moo gañe deuxième bi waaw troisième bi mom bukar mom moko gagné mais fils de sigi ak Doudou Sané digënté nañ ak ñom niñ def ak bukar ni dinañ def ak ñom nonu mais dafa fekk né bukar mo njëkk disponible motax ñu commencé ci bukar han ah lolu aussi il fallait ko ñu léral lén ko bala ñoo dugg si waxtaan bi nak waxtaan saison bi wala semaine bi mu jëlé trophée bi compétition bi ni mu démé waxtaan ci saison bi ni mu démé après soo arrière ci ginaaw ñëw ci ay début bukar ñëw ci lamb bukar parce que Boucar gis nañ mu def début bu graw dem ba ci biir am yo xamne ne dugg na si biir mu defaat retour aussi ba tey ñu ngi gisandoo lepp luy xew dinañ yaatal si lool yop ndamal daaru nuyu nañ la. ma ngi lay fay lamin di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu wa senegal di nuyu wa akhlu lamb di ñaanal samay supporter jàmm di sakku ci si tamit. di ko sàkku si mboolem sénégalais daal incha allah di rafetlu sa ñëw bi nga fi ñëw tey aussi ndax yàggoon na bañ ko bëggee moom mais xay na jot mooy doog a am. léegi ngay rafetlu ñëw bi ñu fi ñëw yàggoon na bañ ko bëggee jot day soog a am comme ni nga ko waxee ndax bi ma koy wax ne bëgg naa def ak yow interview amateur yi ñu ngi réclamé ana Boucar ana Boucar yàgg na mais lu jot yomb tey la ko yàlla def. léegi ndaamal daaru dañu ñëw ci li na a récent semaine du 16 au 23 parce que ñun semaine dañ koo jàppee entre mercredi ba mercredi comme journal bi ci lay daw nga jël meilleur lutteur lan ngay wax d'abord bi nga bi ñu annoncé ne yow yaa jël meilleur lutteur bi ak lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo la votel ndax avant vote yeeg loolu yow yaa liggéey mais ñi nga xam ne votel nañ la ak ban yëg-yëg nga am bi nga jëlee trophée bi. Ah, contentement rek ndax wax neex yàlla bi bi ma duggee YouTube gis ñu nominé ma ci. Euh, dama ne man xëy na lan laa war a mën a def bañ may nominé si biir meilleurs lutteurs yi après mooy loolu di gërëm ñi ma votel tamit ndax bëgg ma moo tax ñu votel ma xëy na fii ngay yenn saa nit dangay natt sa bopp tamit ak nit ñi fi fi ngi leen toll wax dëgg ne xel gis naa ne bëgg nañ ma lool lool lool awma seen fay di kontaan si ñoom bu baax a baax contentement la tamit si jël trophée meilleur lutteur ndax mbeuri beuri nañ fi té ku nekk bëgg nga li tamit donté du ay millions mais sag la wax deug neex yalla contane nañ ci lool lool lool. waaw légui semaine bobu nga bëree ñaari lamb def ci ñaari final dañu ñëw si premier lamb bi karang la won wa karang la won bobu man ak Ndiol Sénégal ñoo ko final daño dem ba ci final bi après wal li bi wal lamb bi bëgg jox ku début final yi ku nek ben man ak njool géant ñu ne lool d'accordu ci ndax lool gisaguñ ko ndax dañu wañi won mise bi ñu dem ba waxtaan ak CNG bi ñom ñu d'accord ci li ñu wax wa demi final yi bañ tamit lool mo tax final bi agul, après si laa ñëwee daa si laa amee si ëllëg sa yàlla ma ma jël ko. mais karang, avant nga egg final yaa ñol ñaata jël nga am. ma xol 3 wa 3 jël la am ndax man man rek ma beure won préliminaire 9 litres lañu won ma beure préliminaire beure quart de finale demi finale pré finale léegi nga jóge fi ñew fi nga xamante mom moy da daa si la meséréer daan ki nga xamante mom moy mooy baa ñoo ci woon waaw di ko nuyuwaale de passage sa ndax mom mom champion bu mag la eh, yalla moma sutural may man dam ci kawam rek mais du question mom man ko tamit mhm. yeah mais ñu gis kérok final bi da ngeen bëre bëre bu metti da ngeen xamanté da ngeen yag dajé wala nu fa démé wa yag nañu dajé so xolé 2015 mom moma daan daanat ma 2018 yor après si lañ dem sangil ma daan ko ñu démat fé Karang si samedi bi ma daan ko dimanche bi ñëw bëriwaat fële looloo waral bëri bi di métti. ndax maa ngi kon da ngeen dajee kaaraan ci samedi bi. waa man maa ko génne foofu demi man maa ko daan demi final foofu. après ñu bëriwaat si dimanche bi. Mhm. yàlla mayaat ma ndam ci kawam. léegi si biir loolu nga jël meilleur trophée wala maire lutteur de la semaine ñu jox la trophée moom moo nekk noonu. noonu la demee mais Boucar dañuy ñëw ci saison bi rek dañuy jël li gën a récent di arrière saison ren bi. Bukan est ce que jàpp na ñaata lamb la ci bëri. non jappuma lamb yi yëpp nak ndax man damay bëri rek di dem. man su fi wër neké mom ngemb li du du wo man guddigi gi na naa ba ñaar ba ñetti lamb ndax amna na benn guddi goo xam ne bi ji. ñetti lamb la bëri. fan ak fan. ngeñan la dem daanu. Mhm. dem ganjay daanu final mhm. Demat fele genn demi final. ñu genné ma par point demi final. mu ñetti làmb si benn guddi. waaw muy ñetti làmb si. mais coono boobu noonu noo nan la ko bëgg a mënee. ah comme moom lañ opté. Mm-hmm. tamit dañ koy def matal ko rek. looloo tax ñu ñuy wër rek ndax ku xamoon sa wërsëg fi mu nekk xëy na doo bëgg di dabb di continuer mais dañuy dabb suñu wërsëg fépp fu ñu ko yàlla maye rek ñu sante ko ko suñu ko xañee tamit ñu sante ko ko. mais Boucar ñu gis ne ren li ñu seetlu mooy Boucar day naru mais day daanu final rek. lu xew ah day na xëy foofu la lii bi nekk rek la chance bi yem quoi. Boucar daanu na final Gandiaye. daanu final Fimela. daanu final Sangil. Mhm. des na beneen de. yooyu laa daanu ah. final ah fee ne nu mu tuddati kaarang final bi demul daa si lame nga soog a jël waaw ma doog a jël mais pour yow ban jàngat nga def si loolu final yu bëri yi pour yow lan moo la koy ñàkk sportivement nag waaw sport man wax dëgg ne xel damay def li ma war yëpp hmm. mais à la fin moom <laughs> yàlla yàlla rek ay ñëw ak mbiram tamit hmm. wax dëgg neex yàlla ndax soo xoolee ñi may daan si demi final hmm. wala quart de final yooyu ñoom ñooy gën a weex yenn ñi may daan final yee te ma loolu mënuma ko comprendre yenn saay mais nag làmb la làmb moom fi sa sag yem rek foofu ngay yem tamit. Hmm. loolu dëgg la demi-finale yi aussi Boucar daanu na ñaata yoon rek demi-finale. ma xool su ma juumul trois demi-finale. Hmm. waa trois demi finaal laa daanu. Hmm. benn bi baasul la man ak Ndiol Géant dama blessé war a démissionné bañ ndax ñu ngi may naan pour ma démissionné ma ne leen mukk ma ne leen du ci dal. ma dem wat mom mayatuma jaamu ba daan ma tamit ma dem ñu xëccal ma foxoj bi si ëllëg sa si laa simal bandé sama tank bi so xolé ci vidéo bi sax di nga gis dama ko bandé bandé sama kaw jeune bi ni bobu dama gañ nan samay doli pran mané ko may anti douleur la dal bayil ma dem rek forcé ji wat si lama sen kumpa dané waté demi final encore balé ki moma génné won demi final original bu mbel sop wa moma genn lolou fan la won njaafat wa njaafat la woon hmm. yeah muy bilan bi mo nek nonu fiñ ñu tolloogum tey ah mardi le 8 mars han ah, ñuy sargal jigen yi di nuyu suñu yaay yi suñu sœur yi suñu bàjjen yi suñu yumpañ yi suñu mag ak rak yi jigen yëpp ku jigen nek ñu ngi lay ñaanal jamm loy wax ci 8 mars bi bala ñoo continuer wa di souhaiter bonne fête bonne fête à toutes les femmes du monde plus particulièrement à ma maman adorée tamit sama yaay dama ko bëgg sama xol mm-hmm. di souhaiter ñep bonne fête daal légui dañuy ñëw waxtaan ak bukar ci li nga xamantene mom moy lambam en tant que tel bukar Seck ndaamal daaru bu muy commencer beure bir palmalane gars du ko dégg bukar bukar bukar bukar mais lamb bu kar dafa mel ni dafa bëri ay gàllankoor. waa loolu mbiru yàlla suñu borom la rek. Mm-hmm. yàlla moom mooy maye wër. Mm-hmm. moom mooy tege feebar tamit. Mm-hmm. suñu mayee wër dañ ko koy sante suñu tegee nattu tamit dañ ko koy sante ndax moom moo ñu moom. déjà Boucar bi muy débuté ay làmb di bugg a bëreet bugg a pour doon mbër te jarul tax ñu fiy revenir gis na gis nañ magam bu fi nekkoon di bëre kii Bira champion bu mag yaranka nga xam ne moo ëpp ay turandoo boo yëpp yaranka lañ doon wootewu yaranka ay ay tolof tolof dal ko si làmb ba mu bàyyi ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal wér-gu-yaram di ko ñaanal mbooleem àdduna Boucar bi mu demee naan day commencé di bëre est-ce que famille bi nangoon nañ pour Boucar bëre. Euh, suñu famille nag wax dëgg bëriwuñu lañ ñuy tere bëre soo xoolee sama yaay moo. bëggutoon bu baax. Mhm. affaire bi sama yaay moom wax dëgg ne yàlla bëre bi bëggu ko woon bu baax moom. Mhm. mais su fekkee sama papa ko <laughs> guerrier la di ko ñaanal fa mu tëdd yàlla na suuf oyof si kaw moom ak sama tante. amiin ang incha allah ak mboolem julit yañ fa nekkal. Mhm. léegi bu kër commencé maire bi bañ gàppaa bi nangu nga dem ba si biir gars yi bàyyi la nga bu Boucar waxuma mbopati mais bu Boucar fan la njëkkee takk ngemb na day bëri di ban lamb la woon génn palmarin. génn palmarin. jàppatuma ko ndax man moom te ma doon jékki jékki boobu liiw ma sax sama carte doomu mag bi laa doon yóbbu ndax ñun ñoo bokk benn tour après dama doon jël carte d'identité bi di ko bëriwaale. Mm-hmm. man pour pour ma wax fi ma débuté làmb day xaw a jafe. Mm-hmm. ndax ñun boo doonee xale doon nekk palmarin. pour nga wax fi nga débuté day xaw a jafe ndax yow da ngay rek di continue. continuer mhm. looloo koy def waaw mais fi ma njëkk a jëlee lamb mhm. bu normal ndax ay mbapat moom dama ko doon jël <laughs> presque lu bari lu bëree bëri sax waaw <laughs> mais lamb bi ma njëkk a jël John Waar la John Waar yeah. loolu bon at la ak ñaata lañ fa tegoon poussière la woon suma juumut 100000 lañ suma mhm. ndax normal mm -hmm mais suma juumut da 100000 lañ tégon kan nga daanon final bi ben njool la dé wa jon war la bu tok mbuur man jàppatuma sax tour bi mais lolu ban année la won mi ngay jël poussière boobu ma xol ci 2014 2015 saison bobu la 2014 2015 yeah. bu Boucar commencé 2014 2015 li gaay yi ci si si bëre Boucar mooy am Amna sax ñuy dem bo wax ne Boucar dafa bu làmbam jeki jeki. bu Boucar est ce que lim mu raw ga du bëri na non man <laughs> raw gaadu soo xoolee benn at laa ci xaw a def ñaar ndax dama man aw drapeau man dama doon bëre bi may bëre poussière sax damay bëre ba poids lourd man bi sama licence bi nekkee ak man xooluma fu may amee ak fu ma dul ame naa compétir rek laa doon def man dama doon bëre ba poids lourd sax waaw léegi Boucar lan lan moo waraloon loolu est-ce que du woon yoon nga dem étape par étape wala yow da nga gëmoon ne gars yi mënuñ la wala nu mu demee noonu. man naka jekk nag dama gëm ne mbindeef mënuma mhm. naka jekk loolu laay gëm même bi ma doonee booy sax loolu laa gëm. Mhm. dama gëmoon ne kenn mënuma donte di nga dem ba dugg si poids boo xam ne sax yow doo ci génn. Mm-hmm. mais si sama main dama doon naan xëy na su ma defee nii su ma defee nii. dinaa ci trompé grand yi. voilà te yenn saa yi am na ñoo ñu bëri ñoo xam ne trompé naa leen ci tamit. avant ma maa lii. dinañ si yegg si Boucar ay débéem est-ce mun na ñoo wax yan mbër wala yan champion ñooy ñi nga xamante ne ñoom la débuté ndool ci zone ba diggante Palmarin ñëw Joal arrondissement Fimela dugg si dëkk ndox yi. Euh, soo xoolee nag presque samay grand rek laa fa doon taseel. Mm. man bi may bëri raw gaadu. Mm. boobu samay moroom ñi sañ a bëri si raw gaadu bu wuñ de daan na am nag ndax si samay maas moom bi may ñëw suma ma abu aseef daal xam naa ne ñun ñoo débuté te moom da doon jàng booba. waaw mm-hmm. mm-hmm. abu aseef daal mën naa ko jàpp ñun ñoo débuté ak ñoom ñelle mm-hmm. waa ngunumaan la champion bu mag tamit ak ñan. bari nañ de mais jabatuma len ñom ñep mais samay grand la ëpp lool limay beurel nak legi suñu côté ñan ñofa nek say say say say say say say say natango ay jof yor simal dugu ndangaat euh xana ay dudu salé ñom babu sar ñom wali affaire yoy mm-hmm. presque bi may dugg ci sen zone bi ñom ñom ñom ñoo la fek ñom simo bu ñoo jor wa ñom simo ñoo jor encore ak ñom alpha ñom alpha wa alpha mu ne ay raw ay tank yu neex waaw trop sa ah. soo xoolee bi ñuy bëri tànk nag boobu Alpha moom mu ngi poids lourd moom. Mm-hmm. Mm-hmm. raw gàddu daal lañ tombeel mm-hmm. ma lii ñu aj ma <laughs> gis nga ñoom ñu continuer seen chemin. waaw ci ci biir aj boobu problème bi lan la woon parce que affaire yi tey dañoo war a ñëw leeral gars yi parce que Boucar gars yi dañuy wax si moom ay wax yu bëri te ñeneen ñi duñ maîtriser si yooyu Boucar a ngi nii toog na leeral aj boobu daa mel ni problème bi yow ak Alpha la woon. waaw man ak Cheikh Tidiane la woon. waaw ma daan set la ma am <laughs> xam nga rek fugu de jeune won set wa motul won set bo six la ma am ndax man affaire bi dama koy japp après mu ñew ne ma <laughs> set la ma am xam nga ma ñew ñu indi problème bi affaire yoy gaay yi ma ma ñew delu si waat def bêtise bo xam ne dama koy reccu ci sama lamb yep mm. wax deug neex yalla reccu na ko lol lol lol ndax suma sañon duma mësa def mbeur lo xamne da koy gañ ci lamb léegi nu mu demoo loo ko defoon bañ aj <laughs> est-ce que jar nañu siy jaar. <laughs> da ngeen xeexoon daal. non moom xeexut. xeexut yow yaa ko gaañ. waaw man maa ko man maa indi woon problème bi moom wax dëgg neex yàlla. parce que dalaa ne am la set matul set nga mer. waaw ma mer. am nga mër bu daanu moom day day day day day tàng xol. waaw da ngay énervé ba pare yenn suñ la waxee yooyu rek soo àndul sa xel mën ngaa def. njombe mais. loolu du dara ak moom ak làmb ñoo ànd ndax mbër moom mën nga ko daan benn ne ko fukk laa la daan mais xëy na soo doonee xale doo comprendre loolu yëpp yow pour fajal sa bopp sur le sang moom moo lay neex. léegi ñu ajoon la ñaata at. wala ñaata mois. cinq ans lañ ma ajoon. cinq ans juróomi at. waaw. <laughs> voilà c'est loolu la woon. Dakar lañ ma aj yoon xam nga commission palmarin bi moo ma waroon a aj mais affaire bi dañ ko jàll dañ ko yéegaloon loolu moo gën a woon cas bi nag ñu dem ba cinq ans yi mm-hmm. les deux un daal laa lii toog di sàcc di bëre si biir île yi ndax boobu dama toog affaire bi xaw ma li may niru daal ma ne non non comme mën naa bëre si île yi bàyyil ma daw di bëre si île yi ñoom ñu ngi koy dégg mm-hmm. mais taxul tamit man ma bàyyi nga yaakaar ne buñ la keppaatoon si loolu est-ce que mënu woon aggraver situation bi. à <laughs> vie ah, laa naroon a toog dootuma ah. bëri. mais après dañ ma jéegal ñun dañ doon bind tout le temps. ay lettres di di jéegalu. Ah. bañ mujj ñoo jéegal. ok bu bi ñu leen jéegalee nga commencé waat bëri ban at. si 2016 2016 bi sax dama doon bëri man 2015 lañ ma aj. si presque fin 2015 bi. mais 2016 bi bi ma demee ba avril. si laa continuer di bëre ben mbapat mo amone jifir bobu man maay campagne di dem geej ñi may àndal ñu ne ma mbapat amna saaku ceeb ma dem ma dem yalla daf ma jël ko après nak si la continuer si de ku ndox yi si ëllëg sa dem jir nda bëre ji fofu la continuer nag di beure continuer si de ku ndox yi ak ba do fele léegi ñu ñew fi nga xamantene ne Boucar la gëna fessé suma diumul 2016 na

ñom ñepp nakar yoon ak bërel mom wax deug neex yalla ko si jotoon mom, xam nga ne der lay doon tay hmm. da ngay bëre ba naaw mom hmm. yeah mais ñew ci nga xamantene mom mo jër meilleur lutteur année bi ñu passé muy Doudou Sane Doudou Sane sen sen bëre da doon neex ta melni bëre ngeen ay ay ndangaan fan fan ngeen bëre bëre nañ lu bëri de palmarin lañ jëk a bëre final final ben télé hmm. mu daan mo moo la daan. waaw moo ma njëkk a daan mais chute ba dama koy contesté ba léegi ndax moom wax dëgg neex yàlla dama jàpp ne erreur d' arbitrage la woon. ndax man maa ko war ndomb di ko tourné. Mhm. arbitre yi ne sama fes bi daal laal man ma ne su laalee tamit wax dëgg neex yàlla jàpp ma ne laal naa. Mhm. ndax santiruma ko fenn tamit. Mhm. ñu jox ko victoire ngeen joggé palmaré mu fekk mu dal à domicile wa ma jof yor feyu à domicile feyu à domicile après jofior bi fana fan ngeen wa jof yor encore nga daana wa ci 2018 non si lool 2017 la woon si 2017 bi lañ yoy yooyu ok benn bi bi may daan 2016 la woon ma daan ko 2017 ñaar yoon biir ok ñu demat nangaan mu daan ma ngeen dem nangaan mu daan wa après si lay ñëwaat fii nu mu tuddati lul seeseen yàlla mayaat ma ndam mm-hmm. ñu jóge foofu ñëw ren nag daaw mu daan ma ren mu daan ma mm-hmm. muy tegle la moom moom daane xale màgg na waaw màgg na moom wax dëgg macha allah di ko ñaanal jàmm tamit mm-hmm. moom ak champion yooyu yëpp mais ci il yi aussi dañuy dañuy dañuy jël ki nga xamante ne moom mooy si Simon ñoojoor Simon aussi nekkoon booy bu ës merci moo seen bëre da da doon neex man seetaan na seen benn làmb joof yoor daaru mag yi 2018 la woon aussi. waaw boobu si man bëri nañ lu bëri nag. Mm-hmm. ndax su ma juumul dañuy wax nag pour leeral waxuma ngir ŋaamu waxuma ngir lii lu ma mbër daan. mën naa ko lime lu ma daan mbër tamit mën naa ko lim. waaw ndax yenn saay nga wax tamit ñu yóbbu wax ji foo xam ne yeggu fa diw daa ngaamu wala diw lii. non dañuy leeral dañuy waxtaan rek. ek eh, eh, dañoo bëgg a leeral rek. looloo tax ndax li xas ba jàll moom jàll na. te li ci kanam dañ koy dabu jiwaat ñun ñëpp. Simon su ma juumut sept fois lañ bëre. man maa am cinq. quatre laa ko daan ak benn par point. moom mu daan ma deux. mu léegi ki nga xamante ne moom mooy Waly bu Simal mu nekkoon génération bi aussi Waly aussi seen combat da doon neex. waa suñ ko combat am nañ ko mbaa bu métti Diofior. waaw man maa ko mujjoon a génne par point. demi final la woon suma. waaw demi final la woon. Mm-hmm. man maa ko génne woon par attaque lamb jooju. Mm-hmm. oui Babou waaw Saar benn jour am na jour boo xam ne premier tour la daan Boucar feenee te temps yooyu Boucar daan nekk si ay digg na bi mu lay daan sumbel sumbel waaw <laughs> waaw ndaamal daaru bu Diofior ah, di ko béggee di ko nuyu de passage mm-hmm. waa sumbel boobu parce que dër bi dër bi ñaari dër bi combat boobu li tax mu neex ma ñaari ndaamal daaru la ku ne day xiccal boppam kii ne moom mooy ndaamal daaru kii ne moom mooy ndaamal daaru ñu dem ba jox kii ndaamal daaru bu joof yoor kii ndaamal daaru bu palmarin léegi ñaari ndaamal daaru ñëwal si dër bi boobu waaw ndaamal daaru yi moom mooy loolu xam nga ndaamal daaru moom soo xasee ba tuddee sa bopp rek amatul royal ñëpp ay original lañ lamb subel boobu moom moom moo ma daan foofu jëlu bu rëy suul sama bopp bi sax waaw <laughs> suul suul sama bopp bi sax <laughs> mais avant loolu nag bëri woon nañ man maa ko amoon trois. Mhm. mu waaw mu doog maa daan sumbe. 3-1. waaw muy boobu léegi bëriwaat ngeen. non non bëriwaatuñu de. waaw ah. déedéet. mais génération boobu macha allah ñu gis ne dañoo jógee foofu noonu année boobu di 2018 bi yaakaar naa si si nawet ba nga blessé woon. mais avant blessure bi ñu gis ne Boucar da doon bëre poids lourd lu bëri suñu côté ya. waaw man man awma boobu man depuis ba may doog a commencé làmb rek awma drapeau. Mhm. man bu ma jekku rek damay bëre ji man dama doon bëre tànk di bëre poids lourd di balancer ñaari yëpp si saison ba war sa waroon a topp si laa gaañu nag ndax saison boobu moom yoon la woon pour ma yéegi poids lourd mais si saison boobu laa gaañu léegi Boucar ak poids lourd yi ñan ñan ñan ñan ñan la si laaleel ay bëre yu métti wala ay bëre yu neex. poids lourd yi bëri nañ nag. non jamono jooju laay wax ci 2018. 2018 su ma xoolee ordinateur. daan na ma ci lu bëri ma xool su ma juumut daan na ma trois fois génne ma deux fois par point. muy cinq. muy cinq lépp ci 2018. waaw lépp ci 2018 bi wax dëgg <laughs> man ma amoon ko benn rek. nga daan ordinateur. loolu fan la woon. campement Ndangaan. campement Ndangaan. Hmm. mais moom avant loolu moom moom ma tegle woon rek. di ah. ñu joggé fofu ñew yaayam fi babukar mu génné génnewaat ma par point lamb ju metti sax waaw lamb joju ma fa woon daa mel gaskel moko ko ci tiaka fay wala lamb bobu la won nek combat bu metti avant bu ma génné génne hmm. mais bukar aussi dafa bëre ak Faran ndangan beure bu rëy bo xamne ba tay gaay yi ndangan ma campement ndangan la ba tay dafa dafa dess ci archive suñu ci biir arrondissement fi la combat bobu est ce que mën nga sey ñew wa xam nga man moom wax dëgg neex yàlla daanuma bëri seeg mag comme di patiner man damay ñëw rek ñu bëri. Mm. ki yàlla war a may ndam rek mu may ko ndam. yàlla moo ma may ndam ci kawam nag. wax dëgg mais combat bi ñëwaata si combat bi lan ngeen bëri keroog ak noo ko daanee. Euh, combat bi sama juumut daal man maa lii bàyyi naax wi. Mm-hmm. moom xam nga day forcé mu ñëw rek forcé mu man tamit ma déclenché. mboot waaw ma déclenché ko mboot. ko top 5. <laughs> waaw gaa yee koy wax rek. <laughs> keroog lamb yooyu nu mu mujjee woon. ordinateur moo ma fa daanoon. Hmm. final waaw. dafa mel ni keroog su ma juumee da daanu si si tànk yi. non non ñëw moon tànk. boobu fee laa a dem si lii ba si vey ba. waaw pasi bu pasi. waaw pasi boobu franc moo ko jëloon. sax dama ñëwoon si tànk pasi rajaxe daan ma. waaw. après si laa ñëwee fële ndangaan sa doog a finaalu su ma jumul aussi année boobu moom nga bëreeg Yankhoba Sarr final bu neex ba Diofior euh, ma xool waaw final bu neex ba Diofior 2017 la nag waaw boobu 2017 la mu daan ma ndax moom moom ndaanaan la ndaanaanu ko lu fadri sax di ko nuyuwaale de passage mais man dama gis benn vidéo boo xam ne mu ngi doon circuler loolu su ma juumul grand àndu la Ah. Léopold André moy bi ngoy koy berek mais koku sa garant la no tax ba bëreeg mom war a war bàyyi garant bi mu jallu mais nga bëreeg mom lolou numu mu wa erreur la rek ah. <laughs> sama garant la moom wax dëgg neex yàlla fan la woon Diofior la won moy bima yanku ba di daan wa lambu joju la won hmm. wa mu jël la dugg la war la ndomb wa après rek xam nga yene say tamit ñu tollu la fo xam hmm. du mën-mën hmm. ndax dem ba ñu war la ndomb nga daan mom du mën-mën yenn saa da ngay tenter ben action rek luma am jël ndax nit ki su la waree ndomba mom mën-mën amatu fa chance mo la ci génn ya ane bobu nekkoon ane bukar bukar est-ce que jàpp na ñaata drapeau la amone ane bobu 2018 bi si bari woon na re wax dëgg neex yalla mm-hmm. suma jumut amone na lu upp 18 mm-hmm. si si li ma jàpp yaakaar naa amoon lu upp 18 de mm-hmm. waaw deux 2018 nga laal 18 drapeau. Mm-hmm. ñaari 18. ñaari 18. war nu mu si li ma jàpp daal yaakaar naa ma ndax man dama doon compter par saison yenn saa yi li may am. Mm-hmm. mais année boobu moom wax dëgg neex yàlla macha allah. bu affaire yi débordé. santoon naa yàlla bu baax a baax a baax a baax sax. léegi ñu def 2018 ñëpp di xaar Boucar déwén dina yéeg poids lourd sonal grand yi. Boucar blessé ci biir ci ci biir nawet bi blessure bi far la woon ak nan la woon. blessure bi sum la woon. waaw oto bi ñu fa tegoon. dañoo dem ba final man ak général Malika. action bi général gaañu ma sax wax dëgg neex man maa tante ji action ba gaañu. Mm-hmm. ndax man maa doon jéem a jëli tànk yi. Mm-hmm. après foofu laa gaañoo. Mm-hmm. gars yi ne ma démissionné ma ne ma ne mukk sama booy bi ñëw buuba di ko nuyu du passage moom moo ñëw frotteel ma genou bi ne ma bëre waatal ñuy bëre ñi bëre ba ci kanam ma defi waat action affaire bi coincé mm-hmm. coincé waat rek ma teub teud mm-hmm. lol lol mo li won final après fofu la jóge nak muy tané di tané di tané ba ma ñëwaat bëree mm-hmm. fee nu de jilas wa waaw mais Boucar bi mu blessé ñaata at la toog compétirul bi ma wala ñaata mois euh ma xol bi ma won sum béré na ci ben lamb fan jilas ndax man mako jëlone ba mbapat la woon après si dem jirnda mhm. di baku, bobu man nima yewé sama genou bi baaxut aussi damay bàkku ba ci kanam sentir mu ne man fofu la bàkku rek wa mhm. si baku bobu la gañu ndax bobu lii bi tirage dawa dawaguñ sax mhm. may baaxu heureusement ma jot samba siga may ko legui après après après jirnda bi kagn la kar togaat ba so ko 2 ans di dugg ci 3 ans. ngay soog a bëre. may doga a wat mais kar ci biir champion nan nga dem nek ci yoon dem ba ben instant ñëpp bayel xel ci lamb ji nga jekki jekki blessé moment yoyu na xamna ay moment yu metti la ay moment yu tar kar nan la dune moment yoyu ah dina metti mais dang koy santé yalla mhm. ndax am nga ay nit yo xam tamit duñ la baye mhm. lum tar tar tar tar dañuy and ak yow mhm. wa ku ci melni Ousmane Diop ñoom Mansour Diouf ñoom Mansour Seck Léon Seck ak sama gars yi yëpp ñoom Pape Moussa ñoom Fall yooyu wax dëgg neex yàlla bàyyiwuñu ma fenn su fekkee tolof tolof am nga ko ñu bàyyi la rek si lay gën a metti mais wax dëgg neex yàlla samay nit dañoo àndoon ak man ak sama waa fan si club ndax mosuñoo découragé si loolu dañ ma doon may seen xaalis tout le temps xam nga mbër mi bëreetut groupe am nga maintenir ko ba léegi. wax dëgg neex yàlla loolu lu lu jafe la. gars yi da daa meloon ni man damay compétir tout le temps. groupe fan si club boo toog ay trois ans mbëri bëriwul groupe baa ngi doon daw ba tey. barki yàlla groupe bi di daw ba léegi. Mhm. ba ni may commencé waat bëri te dañ doon cotisation su jotoon ñoom dañuy yëkkati seen xaalis cotiser jox ma. Mhm. lépp ndax gëm la. billaahi bëgg ma rek man looloo taxoon sama bàyyiwuma bëri wax dëgg neex yàlla mais su nekkoon sama coobare boobu man damay xool ne ñii liñ may defal. Mhm. wax dëgg neex yàlla ba nii lii naa. abandonné donc mos nga toog ba mu traversé sa xel ne man jaratu ko quoi naa bàyyi bëre. am pagaay. Ah. mais nag su ma ko defee am na sama benn gars boo xam ne Ousmane Diop daf may naan moom. mooy Ousse la la mooy gi nekk Casamance. Oh, militaire xaw ma Kolda waa moom la. waaw su ma ne ma retour day am. Mhm. ne ko waaw te man sax. espérétuma sax ne day am ndax. da ngay xelam rek. waaw boobu affaire bi tar na lool wax dëgg neex yàlla métti woon na lool lool lool laa la wax ba fu métti di mais nag dañ koy sant yàlla suñu borom ndax moom moo ñu ko tegee moo ñu ko tegoon. ba mu ko neexee tamit daf ñu ko teggilaat laal ñu commencé waat suñu compétition. léegi bi blessure bi dañee ci deux ans ba duggu ci trois ans yooyu Boucar fan la njëkk a samp. Euh, Gambie. ndax boobu Sénégal tëj na. Sénégal tëj nga yàkkamtu dem Gàmbi. waaw boobu dama bëgg bëre ji rek. ma dem. Hmm. foofu kii car su ma juumul kii moo ma daanoon. oh Batista. Batista Batista moo ma daan làmb jooju deuxième tour. Hmm. nga jógee foofu. ma jóge foofu sampaat Gàmbi tamit. Hmm. toogaat tuuti sampiwaat Gàmbi ngañ seen daan ma final. waaw. tànk la woon wala poids tànk. tànk lañ bëri woon foofu. waaw mu daan ma final. léegi nga commencé di bëri mais gaa yi aussi ba tey li mu wax rek Boucar li tax bi mu jógee si blessure bi comme moom dafa dafa dafa xawoon génn si làmb ji bi mu ñëwaatee au lieu que mu bëree tànk Boucar yéeg poids lourd lu tax choisir bëri tànk parce que am na gaa yu bëri wax ne comme Boucar daa daa daa daa demoon bi mu defee retour daa waroon jël temps am compétir si poids léger yi ba ba am benn yenn confiance yi soog a yéegaat mais Boucar daa ñëw rek ne poids lourd acca tout droit poids lourd. Ah, loolu moom am na mais tamit da toll foo xam ne man du question ma bañ a bëri tànk mais da ngay toll foo xam ne yow poids moo lay arrangé ndax fanaan si drapeau du la arrangé. maanaam fanaan si drapeau. nga tànk. Mhm. mbër buy fanaan si tànk rek wax dëgg ne yàlla war ngaa war ngaa gën a defarwaat ndax daa metti yeewante yi day bëri man loolu moo gënoon a tax sañatuma bëri tànk ah comme benn instant boo desee ci tànk yi ñu ne moo ko def Boucar da ngay bokk ci favori yi des. lool lool laa ci doon daw nag. Mhm. xam nga yenn saa yi soo bokkee si favori yow da sonn. Mhm. ngay sonn par la force ndax kuy njëkk a dem yow lay njëkk a yóbbu mm-hmm. te mënuma jóge si gàllankoor pareeguma mm-hmm. ñëw di yeewante eh, dugaat yeewaat encore waaw yooyu moom moo par exemple da ngeen di des ay 8 nga dem 7 yëpp kuñ ne kuñ ne 7 yi des kuñ ne mu ne bugar moo des foofu wóoru 7 personne di la di la yeew day xaw met duñ xëcc sa kaw kon <laughs> looloo taxoon ma daw mais du woon ma bañ a bëri tànk moom ndax no yoon la woon ma bëri tànk tamit ndax samay moroma ci nekk samay naataangoo ñoo ci nekk ndax bi may bëree poids lourd tamit poids lourd yi dañ maa ëpp mais tamit mhm. man moom ëpp bi si lii la rek si mhm. yaram yi la rek mais xel mi moom dama jàpp ne mën a luñ ma woon dara mais gars yi aussi ñoo boo boo xoolee ngandaay maanaam gabarit bi ñoom ñoo la ko ëpp mais boo jàppandee ñoom looy gis gaa yi ñoo la ëpp doole wala ëppuñ la doole parce que loolu aussi gars yi dañ siy débat ci groupe yi ci jotaay yi waxa ñu ne Boucar mën na bëre lool mais gars yi dañ ko ëpp doole doo ëpp doole bëriwul mhm. gis nga góor ak góor pour ñu ëppante doole bëriwul. Mm-hmm. ëpp maas am na fi mais ëpp doole bëriwul. Mm-hmm. am na ñoo xam ne nag ñoo ma ëpp doole. Mm-hmm. am na ñoo xam ne maa leen ëpp doole tamit. ndax ñoom ñoo la ëpp gabari. waaw ñoom ñoo ma ëpp gabari mais maa leen ëpp doole. am na ñoo xam ne nag ñoo ma ëpp gabari ëpp ma doole aussi. loolu moom am na ci par la force ndax làmb la rek ñëpp mënu ñoo yem doole. léegi ci biir loolu bi ñu jógee foofu ci saison bi ren lay ñëw ci lañ commencé woon dañuy ñëw ci ci ëpp doole boobu ak gabar yi dañu ñëw ci Boucar su ma juumul participé na drapeau chef de l' état Boucar aussi bëri na ay combat dañu ñëw ci drapeau chef de l' état bi su ma juumul bi ñu lay sélectionné adressé woon man maa am fa woon mais man benn affaire daf maa yéemoon ci doole bi nga wax nii ci laay ñëw. parce que dafa mel ni 76 kilos nga bëggoon bëre ji. lii laa bëgg 86. 86 laa demaloon. waaw mais mais bi nga ñëwee lan nga opté pour dem. non 86 laa. 86 waaw. mais Boucar bi nga yéegee man dama gis poids bu doy waar. 92 laa nekk jour boobu. war a wàññi 92 kilos la man <laughs> war a wàññi ñaata. 6 kilos 6 kilos. pour nekk 86. pour nekk 86. Mhm. ba bi ma ñëwee bi may dem sama mag baa ngi may naan bul wàññi. ndax moom jaar na CEDEAO Birama ma ne noonu ah bàyyil ma wàññi ndax man mënu may raw gàddu si àll ba mhm. sama poids moo diis mais mënu may raw gàddu ci àll ba ñëw di dem six cent kilos ma ne ah garaawul bàyyil ma def quatre vingt ba pare mhm. xam nga xale tamit étape par étape ngay bëgg di demee tamit am na loo xam ne soo fa duggee tamit day métti mhm. donte di di nga am ñoo xam ne mënu mënaluñ la dara foofu di nga leen daan ñu lay daan. Mm-hmm. mais li ma opté woon mooy ñëw kat bëre 86. 86 kilos man mii di wax ak yéen fa ko wóoloo mais fa laa ko ragalee ak poids lourd yi parce que vraiment jour boobu je me rappelle maa ak sama benn grand Tamsir Jawoon donc woon Ondinga ñun woon Ondinga ñun Ondinga lañ àndal si woon mais ko woon foofu bi mu yéegee ma gis 92 kilos man si loolu loolu doole te boo gisee ni mu toll da nga yaakaar ne du egg foofu léegi ñu sélectionné la Kanakan kan nga nekkalon équipe région de Dakar la won région de Dakar man la won Ousmane Bahum, ki dawda Keita bu Joal Bébé Diène ak Ngel djon wa ñun 5 yoy la ngeen demone fan ban région la ki bi amé won Tambacounda mhm. Tamba ban ngeen yemo ci compétition demi finale par équipe wa par équipe ban ban région mo génné won Dakar Fatik Fatik mo ñu daanon mhm. waaw yooyu Fatick dafa aak nag. yi dëgg <laughs> fekk bu Fatick bi daawee xoon xat. jeey léegi individuel yi Boucar fan la individuel yi premier tour laa toogee. kan ci oh, waa boobu. <laughs> tour bi dama koy fàtte yenn saa yi non non du saa bëriwul li muy bëri sa gaan bu xees xaw a ceene nii. est-ce que xamna dulu, dulu. dula voilà dula ben ngeen bu may envoyer photo mbarke de mëna lan anamu koku tamit gaay gisatuñ ko wa man dafa mënon beure trop masha Allah gay ah. dama jeki jeki gisatuma ko mom moma daanon ci chef de l'état bobu mom ban région la ñewon fi no wax deug jappatuma région bi hmm. mais mom moma daanon ci li bobu ok ah. légui par équipe yu 3e place bi beure ngeen wa 3e non 3e place bi ñun ñoko jëlone ñun ñoko jëlone mais bi nga jógee drapeau chef de l'état ba ban ban ban leçon wala ban ban ban expérience nga fa jëlee noo gisee compétition bi waa caa yeeg jours yi bi ngeen demee li ngeen fa nekkee ni ngeen ko bëree. waa compétition bu neex la nag mais ku ciy dem tamit soo mënee ñàkk a wàññi poids de moo gën. Mm-hmm. ndax man maa ngi waroon a wàññi six kilos dem naa ba wàññi ba huit kilos. Mm-hmm. di daw rek continuer. Mm-hmm. ndax man xam nga yenn saa yi nga bëgg a participer ci compétition te doo xam li fa nekk. ndax man dama jàppoon ne jarut entraînement di ngay wëj di wàññi rek man weeru koor googu yëpp damay daw yenn saa ma daw yi bëccëgu ndar kam ñëw yenn sax da ngay bëgg a naan ndox ndax da ngay woor ba pare daw soo ndogoo sañoo lekk lu bëri tuuti laa doon léegi ay salaat ay firiir affaire yooyu boobu man comprendre ma compétition bi ni muy demee gars yi su ñuy entraîné ji sax ma ne noonoo lii daf may chargé nanguwumaa entraîné nanguwumaa def dara bi muy waaj a jeex laa commencé contact mhm. mais daw rek laa doon def moo taxoon bi ma demee tamit dama feebal ba xam ne man faible naa. Mhm. donc li ngay conseillé gars yi mooy ñu ñu bañ a ñu bañ a wàññi poids. Ah. wala ñu bañ a wàññi lu ku ko mën. waaw ay 1 kilo daal garaawul. mais su demee ba ay 4 kilos wala cinq wala 6. Mhm. na doon régime bu baax boobu. xam nga su doonee ne ay spécialiste ñoom ñoo lay wàññi. amul problème dinañ la defal régime bu normal bu ànd ak sa wér mais yow sa jëmu bopp soo bëggee wàññi sa bopp xamoo régime bi baax xamoo li nga war a def tamit da lay sonal à la fin au lieu nga wàññee di nga wàññeeku mais da ngay gaañaale sa bopp si biir. ci biir loolu bi nga jógee chef de l'État ñëwaat compétir nu nu mu demee woon. njëlbeen bi man dama toog dama toog tuuti. Ah. ajuwaat ba récupérer sama. y a quelques kilos. Il y a a dem <laughs> ah. fin saison la presque. Ah. xam nga comme chef de l'État, bi nga saison la. fin saison la rek dara ji une hmm. fin Boucar arène Boucar ay combat là? wala. 2018. saison. Mhm. nu mu yow kan la euh, bonus bonus waaw man écurie la nekk boo est-ce que jàppati naa écurie bi sax wax dëgg. léegi 2018 ba tey bëreewoo Boucar dafa dafa dafa concentré aussi lutte avec symbole bi wala gars yi dañoo jëlul avance bi wala Boucar moo bëggul bëri nu mu demee noonu ba ba léegi bëriwaatoo. taa ngi compétir. man maa stand by on nag nañ ma ay combat yu bëri. Mm-hmm. Euh, xam naa fii d'ici quelques mois wala de si quelques semaine mën naa am benn taxaw tamit incha allahu rabbi. looy dalalee say xelu supporter Boucar war na mun a bëre fii ak fin de saison bi combat arène wala. incha allah bëgg naa ko de wax dëgg neex yàlla. Mm. bëgg naa bëre balaa fin saison. Mm. su fekkee benn wala ba ñaari combat sax bëgg naa woo. Mm. man xam nga dama jógee si difficulté mënoo jógee si difficulté ba pare. ñëw di entamé yoo xam ne. liyeegut foo nga compétir ba yaram bi mandiwaat bëre. nga xam ne soo ñëwee. di nga mën a def résultat incha allah. Mm-hmm. mais Boucar léegi làmb ji ni muy doxee loolu faw ñu wax ci nga wax ci sa xalaat parce que may wax ci actualité rek gars yi li ñuy contesté ci décision arbitre yi bëri na wala CNG affaire yi réglement yi ñuy teg Boucar yow am acteur nga ci làmb ji da ngay bëre di dem di ñëw di gis arbitrage yi di gis tirage yi ni muy demee ci àll bi di dem fépp mm-hmm. yow ban jàngat nga def ci lool xëy na ay tawmu aadama lañ dañuy juum. yenn saa yi mbër juum. Mhm. yenn saa yi arbitre juum. Mhm. mais tamit njuumte su amee man li ma jàpp. Mhm. Euh, ni tubaab bi di def ba indi seen vaar. arbitre yi waroon nañoo def noonu ba indi seen vaar te mbër du fay. mais imaginez arbitre juum. ba pare mbër mi mooy yëkkatiwaat xaalis. dem fay pour recours. waroon nañoo mën a teg seen caméra ñoom suñ juumee dem si seen caméra rectifier sans autant que mbër mi def li recours am ndax am nay mbër yu bëri yoo xam ne mënuñoo bind recours njëkke ko ci man tey su ma demee war a def recours mënumaa bind recours. mais léegi xaalis rek la ñuy laaj laajatuñ sax ay kayit xaalis rek la ñuy laaj léegi. ah, ah man loolu comprendre ma woon sa merci si <laughs> si leeral bi. waa mais mais tamit mbër warut arbitre warut juum. mbër di dugal xaalisam. donc yow li li ngay dénoncer moy le fait que arbitre ñoy def erreur yi mais après mbeur mo yëkëti xalissam pour ñu rectifier erreur bi wa du yoon té mbeur su ñom da dañ koy daan mhm. dañ koy daan ay daanam mhm. ndax yéen say fi nga juum ñu aji la nga tok xeyna na war nañu xolaat bu baaxa baax li ñuy arbitrer ndax bëre dafa metti ñom nak ay doomu adama lañ aussi dañuy juum mais amna erreur yo xamné c'est tolérant amna yo xamné mom pour nga tolérer ko day metti tamit mhm ndax am ay erreur yo xamne ne tay lay doon ma far wané ko am na xamne nak ne erreur d'arbitrage lay doon boobu mom mbeur man nako tolérer arbitre mais suma sañon dal ñom ñu xolaat seen bopp bu baaxa baax ndax ñun ñoo dem sa ñom ñomit mënu ñoo dem sa ñu tay lamb su amut arbitre du am waaw mm. mbeur su fi nekkul arbitre du am arbitre su fi nekkul tamit beure du am ndax mbeur mbeur ak mbeur mën nañoo jugé seen bopp tey da may daan ma ne la daanoo ma. kon arbitre yi xorom lañ ci. Mhm. mais ñoom tamit nañ defaraat seen toogaay mbëri defaraat seen toogaay ñu ànd rek defar. Mhm. incha allah. jaajëfal nañ la Boucar ñu bàyyi la nga sant ñi ngay sant gërëm ñi ngay sant di kontaan si yow di la jaajëfal ah ci disponibilité bi parce que tey jour mardi la bu la neexoon nga ne dangay dem entraînement wala yu demee noonu mais dama laa woo nga ne ma maa ngi gàlle ñëwal. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di bëgg gars yi ma fi fekk jotuma xam tur mais yéen aussi. Modou Fall musa ak Papa gis naa ni ngeen ma accueillir ni ngeen ma dalalee ni ngeen ma ganale kontaan naa seen bu baax a baax. Boucar santal gars yi gërëm gars yi. wax dëgg maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm sama gars yi wax dëgg neex yàlla ñun ñoo fi nekk. su ñun ñoo booku benn mafia bi wax dëgg neex yàlla muy Pape Diop Moussa. ak Modou Fall Pape ak moot Fall moom samay doomu nijaay lañ mais Moussa sama nijaay la di sant wàppal marin bu baax a baax nag ndax wax dëgg neex yàlla aw ma seen fay tey bu ma demee ba doon mbër xëy na ñoom bokk nañ ci wax dëgg neex yàlla di sant sama xarit sama doomu ndey Ousmane Diop kooku moom mooy sama génn wàll mooy man maay moom <laughs> ñaari jëmm doon benn. Mm-hmm. moom di sant sama. sama booy bi yàdda <laughs> Ismaïla borom yëngal yi si campagne yi <laughs> borom yëngal yi di sant ñoom Maadi Maadi ndaamal daaru bu ndaw Maadi ndaamal daaru bu mag tamit gis nga ñoom Modou Faye ñoom Babou Ndiaye ñoom Mansour Diouf waa di sant ñëpp daal wa fan sa club Bougane Seck moom aw ma seen fay ma ngi len di sante bu baakha baakha baakha a baax a baax yenn nga bëgg lim ñep mais xel bi mo la ko dul may tamit mais kuma limut rek mu jéegal ma xam ne maa ngi sant ñëpp daal. ok dul trophée bi ma gis. trophée ba ay bi de. contane contane ci trop. wa ma ngi ci bëgg bu baakha baakha baakha baax di gërëm ñima ma votel ñëpp ba ma mëna jot li wa ya, acha gaay contane nañ ci yena ah. di len di wax ne ñu ngi ñëw. ci fils de Badlin Sigui Doudou Sané jox ko trophée am su boobu mercredi aussi bu ñu defee journal bi dinañ waxaat kan moo gagné pour semaine bi passé di leen di jaajafal yéen mbokki internet yi comme ni ma koy waxee chaque jour rek tout droit zulum salam rang muy abonné ah jaajëfal nañ leen bu baax a baax. acca caméraman <laughs> nice na.